wa naaudu billahi min shururi anfusina wa sayyiaati amalina man yahdi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wasalaatu wasalaamu ala siraajil munir sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabiina lahum bi ihsaanin ila yawmi ddin amma baadu ayyuha al ixwa allahu subhanahu qad arafa naqaa'is al insaan wa mawaadi'a da'fihi wa li anna al hawaa wa sheytaan qad yajurruhu ila irtikaabi al ma'aasi wa min huna فالله فهو سبحانه الرحيم بعباده قد أعطى للإنسان فرصة ووسيلة لتدارك تلك النقائص والضعف التي قد تطرأ عليه ألا وهي التوبة وهي تهني وهي تعني أتخلي عن سائر الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب سالف والعصم على عدم العودة إلى إلى الذنب في مقتبل العمر وتوبة له أهمية كبيرة في حياة المسلم لأنه إقرار لله سبحانه وتعالى واعتراف بعبودية لأنه إقرار بعبوديته لله سبحانه وتعالى واعتراف أيضا بقدرته وقوته سبحانه ولهذا فالله سبحانه قد وعد ليس فقط بالمغفرة لمن تاب بل, أتى بل, بل أيضا بالرحمة والنجاح الدنيوي والأخروي يقول سبحانه يا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إخوة الإسلام أكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الغفور الرحيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله توبة في اليوم مئة مرة ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 ginnaaw gu ñu sant yàlla julli ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci suñu borom mi nga xam ne moo man lépp te am lépp te sañ lépp mu yàggal fi Cheikh Mouhamadou mu te dimbale ko may jox ko kàttan ak ak man goo xam ne dana def li nga xam ne yéene na koo def ci lislaam yéene koo def ci jullit ñi suñu borom def may ko kàttan mu def ko nu kaweeg jotam te defal ko képp koo xam ne itam lislaam a tax a jóg moo moo mooy say jéego mooy saw doxit yàlla jox la kattan akuk man ba li nga yéenee def ci lislaam nga def ko ni nga ko defee ni nga ko bëggee yàlla itam defal nu ci kattanam ci akuk manam jàmm ak xéewal ci dëkk ci réew mi ak ci mboolem réewu jullit ñi ñu ñaan nag ñu ginnaaw bi nga xamee ne nag ñi ngi doon waxtaane ci ajjuma ji weesu ci ne nit ki dafa war di jàngat boppam di xam lan lan la nekkee ndax mi ngi tege fi mu war a tege wala ndax tegg ku na fi mu war a tege bu ko defee nag koo xam képp koo xam ne jàngat nga sa bopp ba noppi yaakaar naa bu da nga gis ci sa bopp loo xam ne ak matadi la wala da nga gis ci sa bopp loo xam ne léeg-léeg da nga jéggi yoon wi nga xam ne moom nga war a jar waaye nag bi suñ boroom xamee ne doomu aadama ku doyadi la xam ne ku manadi la xam ne itam kuy kuy kuy juum la moom itam am na bunt bu mu ko wutal boo xam ne bu doyadee wala mu juum wala mu def lu mu wut def am na bunt boo xam ne fa lay mën a jaar ba doyadi googee mu mën koo dind ci boppam matadi googee itam mu mën koo mën koo mu mën koo matal def ko ak matal loola nag la ko koy bay mooy muy tuub ci suñ borom ndax tuub dafa am solo lool ci lislaam ndax li ko li tax mu am lislaam mu am solo moo di ne ka nga xam ne dafa toog ba mu yàgg muy tuubal boromam am na loo xam ne ñëkk reconnaître na ko ci boppam mooy xam na ne am na buur boo xam ne moo ko ëpp kàttan moo ko ëpp doole boo xam ne mi ngi ci kawam xam na ne itam kii xam na ne itam kooku am na borom buur boobee am na kàttan ci man ko ci mën a jëflanteeg moom am na man-man ci ci mën a jëf jëflanteeg moom am na sañ-sañ ci mën a jëflanteek moom te moo ko santoon te defut ni nga xam ne ni la bëggoon mu defee ko kon li li nga xam ne nag loolu nag boo ko boo ko boo ko defee suñ borom day xam ne boo tuubee suñ borom day xam ne yow kat nangu nga ne am nga borom boo tuubee day nangu day xam ne itam am xam nga ne am nga borom boo xam ne am na kattan mën a jëf ci yow loola nag moo tax ba boo tuubee suñ borom di yam ci jéggal la rek waaye dafa lay defal xéewalu àdduna ak alaaxira loola moom suñu borom moo ko waxal boppam ne bu fekkee ne nangu nga maa tuubal ndax tuub li muy tekki mooy nangu nga ne suñ borom sa mooy sa borom nangu nga itam ne suñ borom am na kàttan ci yow nangu nga itam ne suñ borom am na man-man ci yow kon loolu nag tax na boo ko defee suñu borom du yam ci jéggal la kes képp waaye dafa lay defaral sa da lay jéggal ba noppi defaral la sa àdduna defal la sa àllaaxira loolu nag aaya la boo xam ne suñ borom moo ko waxal boppam moo wax ne yaa o yaa xam istaghfiru rabbakum suma tuubu ilayhi yursili sama aleykum midrara wa yasidkum quwwatan ila quwwatikum mi ngi wax ne jullit yi wala ñi képp ku di doom doomu aadama joo xam ne nangul nga suñ borom suñ borom boo ko boo ko nangulee boo boo boo boo tuubee ci moom nee na day lim lay defal mooy day wàcc ay xéewal yu bari ci yow du yem ci loola waaye dalay dolli kàttan dalay dolli itam ak man du yem ci loolu itam day day day day day day wàcc xéewal yu baree bari ci yow kon mu mel ni tuub doon na loo xam ne lu am solo la lu mat di bàyyi xel la lu lu ndax doomu aadama ju xool sa bopp ku ne faawu nga gis ci sa bopp ak matadi faawu nga gis ci sa bopp itam ne jéggi nga li nga waroon a def léeg-léeg kon nag li lay li lay dimbale ba jéggi googe nga jéggi li nga war a def ak li lay dimbali ba matadi googe nga xam ne moo nekk ci yow mu mat mooy nga dubaat ci suñ borom dellu ci suñ borom ngir xam ne moom rek la ndax suñu borom bi mu nu bindee dafa wàccoog ñun ci wet yu bari ndax lim mu njëkk a wax ne moo deen bind wax na li tax mu binduñu wax na itam li tax bi mu nu bindee mu wutale wax nañu itam bi mu bindee wuutale nu wàcc wàcc wàcc wuñ ci kaw suuf rek bàyyi noog suñ bopp waaye dafa dafa am ay xewal yoo xam ne wàcc dañu koo defal ci kaw suuf ñu man di ko xéewloo kon mu mel ni suñ borom wàccew naa ñun yëmut ci loolu itam bi mu wàccee bi nga xam ne bind nañu te wax ne li tax ma bind leen mooy ngeen nangu ne maay seen borom da caa teg ne eh, eh, wàcceel naa leen ay xéewal yoo xam ne itam mi ngi ci kaw suuf yoo xam ne da ngeen mën ngeen koo jëfandikoo mooy yaa ayyuhan naas kulu mimmaa fil ardi xalaalan tayyiban waaye nag ba nga xamee ne ñëw nangul nga ko am na lum am na tënk bu mu la defal waaye waxul la rek ndax bu dee doomu aadama yi dafa wax ne xéewal gu nekk ci kaw suuf rek mën nañ koo jëfandikoo waaye yaa waaye nag bu dee jullit bi suñ borom dafa am loo xam ne moom la ko wax yaa ayyuhal lazina aamanu kulu min tayyibaati maa razaqnaakum mu mel ni kon jullit bi itam doonut ne lépp loo xam ne gis na ko rek sañ na koo jëfandikoo doonut doonut koo xam ne itam day doxe rek li ko neex waaye day tënku ci ni nga xam ne ni suñ borom bëgg mu doxee ni loola nag mooy tax ba li nga mooy mooy tekki ak nangul ak su nangul nangul nga xam nangul na suñ borom mooy tekki itam ne nangu na ne jaamub suñ borom la boo xam ne ci ndig ci kattanam ci ndigalam rek la war a nekk ci ak ci ay ci ay ci ay sañ-sañam rek ci la war a dox li bëgg ci moom rek la war a doxee ci moom loolu moo tax ba kon mu mel ni tuub lu am solo la loo xam ne jullit bi war na koy baril ci boppam loola nag moo tax ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax ne yéen doomi aadama yi day na ngeen di baril lu ngeen di tuub ndax man day mi nga xam ne suñ borom wax na ma ne li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'axxara muy man topp ma la ci dara ci li jiitu woon ak li mujj nee na man day man mi nga xam ne man suñ borom defal na ma loolu day bis bu nekk li gën a néew ci lim ci lim la boo xam ne da koo joxe rek waaye day wone ne lim koy def bari na mooy di ne nee na bés bu nekk li gën a néew ci li muy def dana té dana tu dana jéggalu suñ borom lu mat téeméeri yoon kon moom mi nga xam ne suñ borom topp ko dara te jéggal na ko li jiitu woon ak li li nga xam ne mooy mooy ñëw kon ñun ñi nga xam ne xamuñ ci suñ bopp dara te ñi ngi dëkk ci di def loo xam ne waruñ koo def ñi ngi dëkk ci itam di doxee noo xam ne waruñ koo doxee kon moom mi nga xam ne nag suñ borom topp ko kon bu fekkee ne mooy jéggalu lu toll noonu kon ñun ñi nga xam ne ñoo mel nii kon nan lañ war a def nan lañ war a jéggaloo suñ borom kon mu mel ni jéggalu daa war di bari ci ab jullit mu di ko def nañ yàlla nañu suñ borom dimbalee nag ba ñuy xam ne suñ borom mooy suñ borom ndax xam ne sa sa borom mooy sa borom mooy tax nga nangu ne moom boo defee loo xam ne waroo def ci moom waroo ko def ci moom amal na bunt bu la ubbil ba nga xam ne loola moo lay teqaleeg loolee nga def te waroo koo def moo lay dimbali itam ba matadi ga go nga defoon mu ma mu mën a mat loola nag mooy tuub kon nañ yàlla nañu suñ borom di gën di xiir ci ñuy tuub te xam ne ay doome aadama lañ ñu matadi te xam ne itam bu ñu suñ borom bindee bàyyiwuñu ñu rek ñu nekk ci kaw suuf bindu ngir rek daa bëgg a bind waaye dafa bind ngir am lu tax mu bindu lu tax mu binduñu nag mooy ñu nangul ko ne ko ay ay jaamam lañu ko koo xam ne nangul nga ko ne sa sab jaam laa nag war ngaa góor góorgóorlu ba lam bëgg ngay def lam lam tere ngay moytu boo defee loo xam ne def tere na ko wala nga def loo xam ne bëgg ko lii lay cay dimbale mooy kon nga bari ngay tuub ci suñ borom yàlla nañu suñu borom nag di di di gën di xiir ci ñuy xam ne ay jaami yàlla lañ ñu war di tuub ndax dañoo matadi ay jaamu yàlla lañ ñu war ñu war di tuub ndax tarxiis dañoo yomb ay jaamu yàlla lañ joo xam ne itam dañoo am koo xam ne mooy suñum noon te yàlla moo nu ko waxal boppam moom képp la mës a tudd wax ne si kii seenum noon la inna seytaana lakum aduwwun fattaxisuhu aduwwa la wax seytaane mooy seenum noon kon nag koo xam ne kii mooy sab noonu da nga ko war a jàppee na mooy sab noonu sa noon boobu nag bëggut nga jaar fenn fu dut fu bëgg fu bëggut ak nga jaar fenn fu dut fi nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci yow li mu bëgg mooy ngay jaar foo xam ne suñu borom bëgg ko ci yow comme te yàlla jox na ko kattan goo xam ne mane na nu nekk dana defe nu nekk kon nag li lay mën a dimbale ba kookee nga xam ne moom la suñ borom jox kàttan ba mu mane nu ne tey defee nu ne nga man ba bu la jaaralee fenn foo xam ne waru foo jaar nga mën a mucc ci loola loola mooy tuub kon yàlla nañu suñu borom gën di xeer ci xeer ci tuub yàlla nañu suñu borom gën di dimbali bañ xam ne ay jaam lañ yu matadi yu doyadi te doyadi googee ak matadi googee la koy mën a day mën a tax ñu mën caa mucc mooy ñuy nangul suñu borom di ko tuubal di ko jéggalu ndax xam ne mënuñoo mat yàlla nañu suñu borom taxawal boppam yàlla nañu suñu borom sàmmal boppam. yal nañu suñu borom xamal ne di ñu gën di xamal suñ bopp ñu xam ne ay doomi aadama képp lañ weesu wuñ ko te xam ne doomu aadama jenn joo xam ne man ngaa wax ne mat naa ba man ma mel ni ma war a mel amut kon nag ku koo xam ne wóor na le ne mënoo ni nga war a mel wóor na le ne itam mënoo fexe ba mat ni nga war a matee kon ki nga xam ne nag moo la moo ci doom moo ci suuf te ba mu lay indi ci suuf andiwu la rek ngir daa mën a bind rek di bind waaye dafa am lu tax mu bind mu mu wàcce la lu tax mu lu tax muy itam mu bind la kon loolee saa yoo ñoppee jaar fa nga xam ne fa la bëgg na ngay bari looy tuub na ngay bari looy dellu ci suñu borom na ngay bari looy jégglu ndax loolu mooy tax ba loolee nga def te waroo koo def mu mën a far ci yow loola mu mel ni ko suñu borom defal nañu ñaari xéewal yoo xam ne lu mat di bàyyi xel la moo di ne defal nañu loo xam ne bu nekkee ci lu baax te bëgg caa continuer loola lañ am na am na am na lu mu jox ba tax ba loola buñ ci sukkandikoo lu baax lañ nekk danañ ci gën di ko danañ ci gën di bu ñu defee loo xam ne itam ab safaan la def jox na nañu bunt boo xam ne danañ ci mën a jaar ba safaan boobee ñu def ñu man ko far li nga xam ne moom lañ jox ba bu góorgóorlu ba nekk ci li nga war a nekk bunt bi nga xam ne moo lay dimbali ba da nga nekk nga gën caa dëgër mooy ngay sant suñ borom sant suñu borom nag mooy ngay gën a xam ne lii ngay def de da nga ko war a gën a def li nga lii ngay def de da nga caa war a gën a góorgóorlu bi beneen bi nga xam ne nag mooy matadi gi soo ko defee li nga xam ne moom la la jox bunt bi nga xam ne moo lay moo lay faral matadi gi mooy tuub mu mel ni kon suñ borom day borom borom yërmande la ju rëy rëy ci doomu aadama ndax bunt yépp yi nga xam ne xam na ne ak matadeem dana fa feeñ wutal na ko bunt boo xam ne moo koy teggil moo koy dimbali ci matadi ga bu ne nekk gi nga xam ne moom la ko yàlla dimbali léeg-léeg mu nekk ci lu baax itam day xam ne du du ay pexeem du ak manam du kattanam waaye suñ ndimbalul suñ borom la bu ko defee nag ngay gën di sant suñ borom mu gën laa dimbali ci li nga xam ne moom nga nekk yàlla nañu suñ borom sàmm yàlla nañu suñ borom taxaw rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbi inni zalam rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana ixfir lana zunubana waxfir rabbana innana zalamna anfusana sulman kathiran wala yaxfiru zunuba illa anta faxfir lana maxfirata min indika warxamna innaka anta alxafuru rahim yan nañu suñu borom jéggal yal nañu suñu borom taxawul boppam ba li nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu di ko def suñu kéem lay kattan bu ñu demee ba nga xam ne def nañ lu lu mu bëgg ci ñun itam mu gën noo xiir ci ñuy di ko tuubal te di ko di ko te di ko jéggalu loolu suñ borom mën na ko jàpp na yan yal nañu ko defal. والقلم وما يسطرون bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu këru liggéeyukaay bii di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal moo ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di dëppoog ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind xët ci alxuraan bind sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu C3S bi la gën a jege wala nga yóbbu ko ci fépp foo xam ne rabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa li bees édition ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ak jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante bi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw ñett ñi jiitu ci concours national bi danañu am ay neexal yu ñu leen jagleel premier bi 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions bu dee ci jigéen ñi première bi 1 million 500 deuxième bi 1 million troisième bi 500 000 francs bu dee concours bay am ci région de Matam premier bi 500 000 francs deuxième bi 300 000 francs troisième bi 200 000 francs terewul nag ku bokk ci tànn bu njëkk ba di nga am ay neexal yu ñu la jagleel dépôt candidature bi dina door 1er janvier 2020 war a jeex 31 janvier 2020 ku ci bëgg yeneen di leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بنعمة